ku bokk na ci baale bi est ce que fekk nit boo xam ko mu ngi amul baale benn yoon Ousmane Sonko mu ngi xam ne ne machine bi lancé nañ ko te nag yoon dana def liggéeyam ak lu mënti am semaine bi rek lancé nañu ay audit plus de 60 structures yu audité yi nga xam ne jotoon nañ ko def te mu nekk ci cour des comptes nekk ci IGE nekk ci leen ak leen dañ ko génne teg ko ci table justice waaye nag ban yoon mais justice bu ñu defar bu ñu bu ñu balee ba noppi ndax xam nañ li fi xewoon ci justice bi ñu ko balee ba mu set jël les vrais magistrats ñi nga xam ne jub nañu dinañu appliquer loi ni ko yoon waxee bu ñu leen tegee ba pare la ñu war a def yëpp dinañ ko def ci ñi luubaloon alalu réew mi. yoon bu ñu defaraat maanaam sax yoon bi nga xam ne su moytuwul moom ci boppam moo ko nar jiite jite suñu sukkandikoo ci waxtaan bi nga xam ne seq na ko ak kii ministre de la justice. semaine passée ministre de la justice man la envoyé vidéo ne ma kii ci Pastef la bokk te mu ngay menacé magistrat yi dama ko monsieur le ministre defal sa liggéey ñun ñoo ngi fi di xool kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax ñoo ngi doon dem di ñëw koy di ko dëggal su dee projet PASTEF justice bu indépendante la ñuy sàkku kon ana naka la ñu war a gisee doxalinu kii di ministre de la justice nga xam ne mu ngi mel ni rek kuy laaj permission ngir dàq ab saagakat ndax saagakat boobee li mu bokk ci PASTEF la ndax kii di ministre bi taxawaay boobee lay am su nekkoon koo xam ne ci opposition bi la bokk loolee di ay laaj yi jóg ndax ay xel yu tey ci justice bi ñuy xaarandi ci régime bu bees bi.